naataal ñaar fukk ak juróom balaa di yéeg ci kaw asamaan digoon na ay taalibeem ni dina leen yónnee xelu yàlla bu sell bi bi mu yéegee ba am fukki fan tombe ak Pentecôte di feetu yawut yi ay taalibe Jésus ñu ngi daje woon ñoom ñépp ci benn bërëb ci saasi ay làmmiñ yu mel ni làmmiñu safara daldi wàcc ci seen kaw ci ñoom kenn ku nekk ñu daldi fees dell ak xelu yàlla bu sell bi daldi tàmbale di wax ci yeneeni làkk fekk na boobu amoon na ay xeetu yawut yu bari yu nekkoon biir Jérusalem dañoo daldi waaru ndax kenn ku ci nekk ci ñoom gaañaa ngi wax ak yow ci sa làkk di la wax kéemtaanu yàlla xelu yàlla bi lu mag la